rek la digigin Lucky Sacky Rumba Lucky Sacky Rumba Lucky Sacky Rumba sampal endal go e ci namal ci dabi fecal indingo indingo Lucky Sacky Rumba sampal indingo ma ñappe woon ma mi geboon zena fobio zelare gel Isn't Zabal Hindal Gor, Zamalim Baldara and Daji Bara Hindal Gor, Zamde Gadera and Daji Bara Hindal Gor, Hey, Demba, Zabal, Bamba, Zabal, Baimod, Zabal, Alpha, Zabal, Wizamarai. Zabel Sawadigi Wow Zabel Demba Gang Gang Dembaw Dembaw Gaay loxoy loxoy loxoy ayo ayo ah Bouba Dembaw Alpha Dioum ay feem yu bees yu bees eh. yu bees yu bees Demba lool dans sa vie pas à parler nga eh. yu bees ba dëw eh, baa eh, lu neex ba jéggi neex déglu leen kaana bi en action kon da ngay danse demba lii de yaay borom eh maa bëgg demba yow moom lay dox ba yëngal kaay germa sati ba lay na jaablo ya and some of them as I watch, just keep on handing go. Hey, somebody give up, yeah, for handing go. Hey, somebody give up, hey, some change within the go. Hey, somebody good, just keep on handing go. Hey, what about? Some day about, some little battle, right, just keep on handing about. About some day about, man, you can wear a watch, you know, Simulon, Gangi, Gangi, Mahu, so Jackie, man, so Kiss, my, can borrow me. jaata rahin baba gaasa ngeen na ma ñeex ab bu bëtam baal ba ngay ree ba daw moo yëngal gone yi ah. seen yi mag yi waxi noppi xale bi c'est du jamais vu nee leen kii mooy tuuba si mën a xaani waaw wili waaw waaw hee bala ko jum du ma jumul baaxul may taw awa bol ah. di ma ko bébé faa doomu yaay Cerno Bara Faal kontaan na ci lu yàgg dëgg la ci biir boo ci njëkkee bor yow daa ngay ca jaar ga ca tigo jaaral la ca jaar jaaral la ca jaar ga ca tigo jaaral la ca jaar bawul ayal la ko dogal jaaral dunda sa por dunda ko bokar bol tokyo man dina la way bi nu ko neex moom la ñu dikkee léegi sama gis moo yor ku ci bugg bu ba yow ñëwal fii ñu dox gaara hindal gees gees gaara hindal gaara hindal gees gees gaara mu yaay buuba yaa ko jàppale wili moo yow buuba loo nag yow ñëwal fii wan ñu ko dangay dox gite bun si laaba sindi gaar laari yow nu saabanu saray kero ding gëm saabanu ram tax sungur gan la yaa hindal gaara bo yaa ji may gaay gin ñam sama daa ci du ha gin ñam like and bar again ha gin ñam kaay fi ñu baara xeen buuba damba moo ko fi andi laaga bek nun ayo da sabar hannu dalay min da moyo ku ci bëgg bu ba yow ñëwal fii nga dengalor merci merci beaucoup ay jëf boo ñëwal kaay leen ñaar kaay leen yéen kaay leen bàyyiwul euh, Ticha bu fekkee mën nañ ma ndàkk ndàkk yow wali <laughs> yaay toog rek. eh jugal eh jugal eh eh bàyyi ma. fépp wóorul la. parce que méttiwul la mën nga jaamante ne jaamante. yaa ko ci daal la dëgg la moo laaj loolu quoi. tey la. waaye. léegi léegi li may bëgg a doon. kii jarul faral kii baaxul. Demba.